أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أين نحن من تعاليم الإسلام؟ إن الله بعث لنا إماما ووضع لنا نظاما وفصل أحكاما وأنزل كتابا وأحل حلالا وحرم حراما وأرشد لنا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا وهدانا سواء السبيل إخوة الإيمان السؤال هو فهل اتبعنا إمامنا واحترمنا نظامه وانفذنا أحكامه وقدسنا كتابه وأحللنا حلاله وحرمنا حرامه بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu toro- turu borom subhanahu wa ta'ala laaj bi mooy ayna nahnu min taalimi lislaam mbokk jullit yi fan lanu toll ci lii lislaam di jàngale sunu diine njàngalin yi mu jàngale yàlla subhaanahu wa taala dundin wi mu bëgg nu dund yonent bi jàngale ko ayna nahnu min taalimi lislaam fan lanu toll tey ci li lislaam jàngale ndax kenn réerewul mbir ne sunu borom subhanahu wa taala def noo yónnee imaam ku ñu jiite muy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ñëw jiite nu yàlla wax nu ne moo ko yónni mu nekk sunu njiit waaye laaj bi mooy moom ba ko yàlla yónnee mu jiite est-ce que nangu nan koo topp ndax yonent bi bi mu ñëwee jiite dafa ñëw rek indi ay loxoy kese waaye wa wada lana nizaman daf ñu indil organisation aw dundin wu nu war a dunde maanaam noonu nu war a dunde yonent bi dafa ñëw di jàngale naka la naka lañ koy dunde organisation bu ne weng bu leer nañ yàlla subhanahu wa taala tënkal ñu ko ci sharia mu ne moom yàlla wa fassala ahkaaman mu leeralal ñu ay atte te mooy sharia naka la ñuy dundee sunu digganteeg sunuy soxna sunu digganteeg sunuy doom sunu digganteeg sunuy wayjur sunu digganteeg sunuy dëkkandoo sunu digganteeg sunuy mbokk waaye naka la ñuy dundee ci biir société bi yépp yàlla daan ñuy tënkal ahkaam yooyu ci biir téere bi mu ne nanu ko atte woo te moom yàlla mu xamal nun ne atte yooyu moom dong moo ko mën a wàcce mu jub mu ne ñu inil hukmu illa lillah man yàlla dong maa leen war a atte alaysa allahu bi ahkamil hakimin yàlla ne ñu ne wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun lii ma leen jox muy ay atte su ngeen ko wul atte woo rek ay yéefir ngeen wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul fasiqun mu ne atte yii ma leen jox su ngeen ko attewul da ngeen a génn topp ay kàccoor ngeen wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humu zalimun yàlla mu nañu atte yii bu ngeen ko attewul tooñ ngeen ay yéeféer ngeen ay kàccoor ngeen kon nanu bàyyi xel tey bokk na ci li tardeel jullit yi ci àddina bi yépp mooy jàpp lislaam julli la koor tabaski jeex na déedéet lislaam weesu na loolu lislaam aw dundin la yàlla yónni ku jàngale loolu muy sunu imam muy muhammad yàlla tagal ko organisation aw dundin woowu naka la nu war a dundee moo tax kuy takk jabar da ngay labat takk mu am ay ahkaam ay atte takk jabar boobu ku am doom dafa am doom jooju dafa am ay atte noo koy ngéntee ku dee dafa am ay atte naka lañ koy suulee maanaam dund bi yëpp ñun li ñu war a def yëpp yonent bi daf ñoo jàngal lan lan war a def kon l'islam dangereux na trop ab jullit jàpp ne vendredi bu nekk la ma dem jumaa rek déglu xutba bu ma ñëwee nekk ci lu ma neex déedéet ixwatal iman wa anzala kitaaban yàlla dafa wàcce téere muy quraanul karim mu ne ñu téere bii laa leen jox mu wax ko mu leer ne yàlla yonent bi téere bii laa la jox pour nga génn nit ñi ci lëndëm pour organisation boobu ma bëgg ngeen dund ngeen jëlee ko ci téere bii looloo tax ñu war cee delluwaat looloo tax ñu war cee jàppaat looloo tax ñu war ko gëm mu nekk sunu constitution moom quraanul karim waaye wa ahalla xalaalan yàlla dagalal ñu ay mbir nu nuy lekkee nu nuy naane nu nuy solo nu nuy dëkkee lu nu war a yëngatu lu nu war a def yàlla subhanahu wa taala li mu ci dagan dong lan war a lan war a daganal waaye wa harama haraman yàlla haramal ay mbir yoo xam ne waruñu ko jege waruñu ko def waruñu ko laal waaye wa arshada lana ila ma fihi xayrana wa saadatina fi dunya wal axira yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëw jubal ñu ba mu leer naññ ci mbir yi nga xam ne sunu jàmm rek rek rek moo ci nekk loolu moo tax jullit yi bi ñu noppee dund lislaam la ñu noppee am jàmm ci kaw suuf est-ce que xam ngeen ne bi islaam di atte ci jamono Omar ibnu Abdul Aziz till yi ak bukki yi ñoo bokkoon ci àll bi di lekk till yi duñu laal bukki yi keroog bi sàmmkat bi toogee ba ci yàgg ci kaw montagne bi muy xool till yi ak bukki yi di lekkandoo ba ci yàgg mu gis till bi song xar mi mu ne am na lu xew dëkk ba mu ñëw fekk dañoo rey amiral muminin maandu te yàlla tabaraka wa taala moo ñu wax ne lislaam mooy dëgg saa yu ñu noppee topp lislaam rek mooy li am léegi ci àddina bi mooy am ku am doole di noot ku amul doole buur di dóor baa doola da ngay dégg sax ñu ne cerey buur celey baadoola mooy ñeex cerey buur loolu ngay dégg mooy li am nii tey ci àddina bi lu ko waral mooy ñun jullit ñi yaafuus bu ñu yaafuus gëm giñ ñu gëmloo même bu ngeen nekk ak guur bu kàccoore na ngeen ko ñaanal yàlla rek bu leen wax ak moom dara gëm gim ñu gëmloo ne su ngeen gisee lu leen metti rek na ngeen ko naqarlu ci seen xol keroog lañ gëj a am jàmm lislaam du loolu ixwatal iman moom yonent wa hadaana sawa asabil daf ñu jubal ci yoon wu jub xocc abu darda radiallahu anhu nee na dafa ñëw benn yahud dafa ñëw ci moom di ko laaj ne ko ndax diina ji jàngal na leen lépp mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp la nu jàngal bàyyiwul dara même picc mu taxaw ci jaww ji daa di sab balaa yonent bi dugg ci biir bàmmeel yonent bi wax na nit ñi picc mi lan la wax ba pare doog a daal doog a faatu ixwatal iman as sual huwa laaj bi mooy fa hal ittabaana imaamahu ndax imaam boobu yonent bi yàlla tegoon sunu kanam ndax ñun ñëpp topp nañ imaam boobu laaj bi mooy yonent boobu yàlla tegoon sunu kanam ne topp leen ko te ku ko topp man la topp wa man yuti rasul faqad ata allah ku topp yonent bi topp nga ma yàlla mu ne atiu allah wa atiu rasul topp leen yàlla ak yonent ba pare mu ne ñu wa man yuti rasul faqad ata allah ku topp yonent bi man nga topp mbokk yi ndax tey topp nañ yonent boobu ndax jullit ñun jullit ñi tey waxuma àddina bi de ñun Sénégal kese laay wax ndax topp nañ yonent boobu loolu mooy sunu laaj ñaareelu laaj bi mooy woon waxtaram naa nizaama est-ce que respecté nañ organisation dundin wi yonent bi indi woon suñuy tontu kenn ku nekk mooy da nga naan topp ñu yonent bi ñaareel bi mooy li yonent bi indi woon ñu war ko respecté da ngay gis jullit boo xam ne am na benn téere bu muy xëy jàng wala benn journal bu muy xëy jàng boo xam ne dañ ko ko dañ ko ne boo ko jàngee sa dund bi yëpp dina barkeel te li ko yonent bi indil du ko jàng li ko yonent bi indil du ko jàng wallahi misaal bi sax dafa sori foofu ci julli gii rek ñu nekk léegi bu ñu sëlmalee da ngay gis même ñaan façon ñaan yi bokkul ñii dañuy joxoñ ndeyjoor ñii joxoñ càmmoñ ñii rëdd ci basang yi ñii def ay cercle ñii def ay étoile ñii di fóon ku nekk di def lu kenn xamul ba ci ñaan bi yonent bi indi rek su ngeen sëlmalee ba pare li yonent bi waxoon ne lii ngeen war a wax rek jullit yi ànduñu ci da ngay gis koo xam ne dane man de wax dëgg yàlla lii dañ ma koo jox te ki ma ko jox wóolu naa ko kooku ak yonent bi ku gën a wóor kooku nga wóolu ak yonent bi ku gën a wóor kan moo wax dëgg ñoom ñaar kan la yàlla wax ne kii maa ko yónni ci ñoom ñaar ñooñu kooku nga wóolu loolu ngay dégg man de wax dëgg yàlla luy waa ji jox ma waaw kii ndeysaan allahu akbar nan xoolaat suñu bopp ixwatal iman est ce que li ñu yonent bi indil dëgg ormal nan ko respecté nañ ko wan fas naa ahkaama est ce que atte yi ñu yàlla indil jox ko Muhammad nangu nan koo atte wu tey suñ ko nangu woon atte lan moo waral police yi lu waral tribunaux yi lu waral yi avocat lu waral jullit ñi baagante ci tribunalu layik bi ku gëm yàlla du dem tribunalu layik ku gëm yàlla du laïcité du ko du ko atte ku gëm yàlla yàlla wax na ko fala wa rabbika la yuminuun hatta yuhakkimuuka fi ma shajara baynahum loolu ay aaya la waaye ñun suñu problème yëpp ci alquran mooy jàng tajwid jooy ñibbi allahu akbar imam moo neex baat ñépp a doon jooy jumaa ji bu ñu jooyee luñ dul dund ban njëriñ la am bu ñu jooyee luñ dul dund ban njëriñ la am jooy kese kese fa lañ ci yem alquran loolu taxuloon mu wàcc ixwatal iman wa qaddasna kitaaba est-ce que téereem bi téere yàlla bi teg nañ ko ci kaw est-ce que dëgg-dëgg dugg na suñu xol est-ce que téere yàlla bi fu mu war a toll ci ñun toll nanu ñu ngi ci ouverture école balaa alxuraan bi fees balaa école franco-arabe bi fees da nga yóbbu sa doom ba pare bañ ne non amatul place vraiment fii fees na nga wóor ba sonn xam ngay amoo loo fay nga doogaw ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi daara ji ñaata la mu ne la 5000 nga ni inna lillahi wa 5000 man de 1000 francs la am wala 750 alxuraanul karim ñun ñëpp foofu lañ ci tool da ngay dem école boo xam ne amul waxaale fiis lañ lay jox nga xool ñu ne la cinquante mille inscription fin du mois vingt cinq mille nga génn teg nga dem ci alxuraan dafa seer wax dëgg yàlla dafa seer alxuraan kese kese kese alxuraan kese kese loolu ngay dégg alxuraan kese allahu akbar dañuy wax rek wallahi sunu ngëm des na wax kese lañ fi nekke wax rek jëf ji des na ngëm gi des na ixwatal iman waa halal naa halaala est ce que araamal nan li yàlla araamal liñ yàlla tere est ce que dëgg-dëgg bàyyi nañ ko wa haram naa harama est ce que daganal nañ li yàlla daganal aramal nañ li yàlla aramal ibadallah kunu suraha fil jawab kenn ku nekk fi nga toog réponse bi mooy yow yaay tontu sa bopp ndax lii nu laaj ñu ngi ci wala nekk ci aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafurur rahim الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله كونوا صرحاء في الجواب وسترون الحقيقة وادها أمامنا كل النزم التي نصير عليها في سؤوننا الحيوية نزم تقليدية لا تتصل بالإسلام ولا تستمد منه ولا نعتمد عليه laaj bi ñu laaj mooy kenn ku nekk suñuy tontu tey ci question yi passé suñuy wax dëgg mooy ñun ñun ñëpp nañu ànd xool suñu dundin mu leer ci ñun mu nekk suñu kanam ñu gis suñu organisation dund yépp ni ñuy dundee lépp dund toppandoo la jële wuñ ko ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam roye wuñ ko yonent bi sunu dund yàpp toppandoo la sunuy tudd nga dégg kenn mu ne ñun lii la ñu fekk sunu maam yi def minen ko ni tawɗen mawɓe ɓe ina waɗa enen ko ni watten ko ɗum anduɗen ko ɗum ɗo tawɗen ah wona ko noon wiyeten nga ñëw ci tugalóor yi ñu wax la loolu nga ñëw ci olof yi ñu ne la ñun danoo fekk sunuy maam nii la ñuy def ñun loolu la ñuy def bu ñuy takk jabar noonu la bu ñu demee ci armée li noonu la bépp suñu dund loolu yëpp da nga naan lii lan fekk loolu la toppandoo kese waaye lu yonent bi indi boo waxee sax yenn saa yi nañu def lu yonent bi wax ñu ne ah dëgg-dëgg mag ñi ñoo gën a xam yonent bi te ñoom wuute wu ñoo yonent bi ah yonent bi lii la wax lii moo nekk ci Buxaari yi lii moo nekk ci muslim lii moo nekk ci tere hadis yi loolu wuuteeg lii nu bëgg a def ñu ne wuute wuñu kon kay wuute na yonent bi alayhi salaatu salaam bu taxawoon arafaat ca suba sa lu muy def ku nekk fi nga toog tontul du day julli tabaski yéen bi ngeen taxawee arafaat lundi lu ngeen def ban jour ngeen julli du mercredi ngeen ne wuute wuñu loolu du wuute soo waxee ñu ne non arafaat waa Màkka la concerné quoi ñun concerné wuñu loolu moo tax nekku leen ci lislaam bu leen concerné woon kon Màkka dina leen concerné boo waxee diine rek ñu ne loolu Màkka la ak waa Medina ñun ñun bokkuñ ci wax ngeen dëgg bokku leen ci wallaay wax ngeen dëgg saraxatan lu dëggu la imam ali da doon wax julli di mu doon xeexal suñ ne allahu akbar mu ne kalimatu xaqin arada bihi lbatil dëgg la saa yoo ne màkka concerné wu ma booy julli bul fa jublu bul jàng alquran bi fa la bàyyee ko bul ko jàng de bul fa jublu de mukk utal beneen yoon boo jublu bu dul makkatal mukarram tilka loolu fadlu zalika fadlu min allah yuti man yasha yàlla moo leen ko defal kon foog mu concerne ñu mënuñu nekk fii ne dañuy jaamu yàlla alquran ak sunna di wax ñuy teg teggi alquran ak sunna di topp suñuy bànneex ba pakk- bakkan ba pare def suñu bopp ay jullit xam ngeen yàlla lu mu waxoon yonent bi mënul nekk falaa la wax falaa wa rabbika laa yuminuun mënuñoo gëm yàlla dafa jël laa dàq iman falaa wa rabbika laa yuminuun la wax hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum lu dul seen diggante sax suñuy atte ñu ñëw ci yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam Omar rey na benn waaye lan la ko Omar reyee waa ji dafa am ak benn yahud du jullit de yahud la amal problème moom jullit bi mu ñëw ci yonente bi yonente bi daal di jox yahud bi dëkk mu ne yonente bi dafa faral yahud mu dem ci Aboubacar mu ne Aboubacar yonente bi atte na ma maag waa ji waaye d'accorduma Aboubacar atte jox waa ji dëgg yahud bi dëgg waa ji ne ba tey d'accord mu ñëw ci Omar mu ne Omar yonent bi dak atte na ma d'accord ma Aboubacar atte na ma d'accord ma ma ñëw ci yow Omar mu ne xaaral ma ñëw dem jël jaasi bi nga ni loo wax mu jaaraat ci yonent bi atte na ma d'accord ma de Aboubacar atte na ma d'accord ma Omar dagg baat bi nit ñëpp daal di yuuxu Omar rey na jullit Omar rey na jullit aaya bi daal di wàcc ànd ak Omar ibnul Xattaab yàlla mu ne du ngeen mën a nekk ay jullit lu dul bu yonent bi àttee ngeen nangu hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum loolu la yàlla wax aaya bi bu muy jeex lan la yàlla wax wa yusallimu taslima ngeen jébbulu ak jébbulu ci yàlla ak yonent bi li ñu àtte est ce que ñun tey li yàlla di dogal neex nanu mukk boo waxee rek ñu ne non ñun waa Sénégal ñun waa Sénégal ñun waa Sénégal fan lañ jëlee beneen diine bu dul l'islam fan lañ jëlee beneen diine bu dul l'islam kon dañuy wax rek mu leer bu fekkee ay bidaa lañ gëm ak ay aada ñu wax mu leer ñu xam ne ñu nekkuñ ci lislaam loolu mooy mbir mi ixwatal iman suñu xoolee organisation dundin bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wàcce danañu fekk ñun ñëpp mu nekk nazmun taqlidiya mu nekk dundin woo xam ne toppandoo la toppandoo lépp dañuy toppandoo inna wajanna abaana ala umma ba léegi ñu ngi ci loolu waaw ba léegi ñu ngi ci loolu ni mag ñi doon defee rek ni xeet wi doon defee balaa ñuy tuub niñ ba ci xaru tabaski bi ñu reyee ba pare ñaata tànk ngeen génne tànku ndey tànku baay falaray maam geenu nijaay baatu feeskat ba tey ba tey ñu ngi ci aada yi ba tey bu ñuy ngénte ñu ngi ci aada yi bu ñuy tudd ñu ngi ci bu nit deewee sax bu ñu demee ci armeel yi allahu akbar xam ngeen sunu imam bi ñu doon jiite fii dafa faatu yal na ko yàlla yërëm keroog bu ñu demee ci armeel yi di ko yóbbu benn waaye woo ma mu ne ma tey laa mos a gis ñu def sunna ci biir armeel yi tey laa fi déggul qul wallahu ahad dégguma fi inna anzalna dégguma fi inna fatahna dégguma fi alam nasara mu ne lu tax jàngu leen alquran ñu ne ko armeel kenn du ci jàng alquran yonent bi daf ko tere kenn du ci waaye xoolal ñun bu nu suulee rek nga gis ñu ne eh dara to jàngu yaasin dara to jàngu inna anzalna dara to jàngu alam nasara dara to janga surat o so allah welama so wela ko o natal aljanna inna lillahi wa loolu ban diine la da ngeen defe ne mun ngeen jàngalu yonent bi jàngul woon ngeen yona ëpp yonent bi barke alquran ci kan la doon wàcc du ci yonent bi yonent bi mus da dugg ci armeel jàngu quran mus ko def naka ñun ñuy def lu nu neex te yonent bi lu mustul def ku ko def da nga indi sama problème kenn du la ko nangul loolu yonent bi la ko yàlla assuréel doomu ndey yi kon sunu dundin yëpp tey dundin la woo xam ne dañuy toppandoo taqlidiya laa tattasilu bil islam wallahi amul relation ak l'islam da ngay gis jullit bu def ba pare ñu ne waa kii lim def nii nag ñu ne ah waaw ñu ne mais l'islam waxul nii mu ne ah man man nii laa koy defee de ah bu bu neexee yàlla na jël bu bëggul na bàyyi man nii laa koy defee man nii laa ko mu ne ñun loolu la ñuy wax waaye wala tastamidu minhu sukkandikuwul suñu mbir yëpp sukkandikuwul ci lislaam kenn ci ñun wala taatamidu alayhi kenn ci ñun du appuyé wu ci lislaam boo waxee mu ne déedéet man lislaam lu mu wax rek loolu moo tax yahud yi ak nasaraan yi dinu noggatu parce que xam na ñun imaan yi yeggun ci xol yi dañuy wax waxu kese la parce que yëg-yëg bi la ñu rey fi ñu waroon yëgee diine war ko yëgee muhammad mu gën ñoo màgg ku nekk sahaaba yi keroog bi umar ne benn waaye ne man de yonent bi alayhi Omar ne man de yonent bi ginnaaw sama bopp yaa ma gënal ñëpp Omar ne yonent bi ne ko Omar gën a gëm a goo de Omar gëm a goo Omar ne yonent bi kañ laay gëm mu ne man yonent bi bu ma la gënalee sa bopp Omar giñ ci màggaayu yàlla ne ko léegi fii ma toog nii wallahi yaa ma gënal sama bopp yonent bi ak alaana yaa Omar yaa ngi doog a gëm ah annabiyu awla bil muminina anfusihim yonent bi lan la wax sallallahu alayhi wa sallam laa yumin ahadukum hatta ahabu ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain kenn ku nekk ci yéen ngëm yàlla du mën a mat ci moom lu dul man yonent ma gënal ko boppam gënal koy doomam gënal ko ndeyam ak baayam gënal ko nit ñëpp sallallahu alayhi wa sallam xubayib jàngal nañu loolu keroog bañ koy rey sahaaba ya yéeféer ya ko jàpp ci montagne yi màkka ci xuri màkka jël ay jaasi jël ay paaka di daggata waa ji dagg nopp bi dagg beneen nopp bi dagg bakkan yi ne ko hal turidu muhammad an yakuna makaanak ndax bëgg nga muhammad remplacer la fii ñu daggate ko mu ne wallahi mi ngi madina toog bëgguma wee bëgguma dàllam dëgg jam ko ñii ñoo bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñii ñoo xamoon yonent bi ñii ñoo ko toppoon ci lépp ñii ñoo ko royoon parce que alquran moo leen waxoon ne fal yahzari alladina an yuxaalifuuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum adabun alim allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر